mu wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi topp seen télévision Bichri TV noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziaro ni ngeen ko xamee ci suba ba léegi ñu ngi ci màggalu sëñ Abdul Qadir ñu ngi fii ci kër sëñ Modou Abdul Qadir jàkkaarloog kenn ci ak njabootam di sëñ Abdou Samad Mbacke moom sëñ Modou Abdul Qadir bi ñëwee ñu ngi ko fekk muy màggal màggal gi ni ko maamam digle woon mooy tanzimuhu bi sunnati na lil janna te mooy jàng alquran jàng xasaayit ak bernde mbokk yi di ziarante muy ñaanal taalibe yi ñu koy ñaanal suñu borom bu yàgg koo taxee at yu bëree bëri te lépp lu mu ci def suñ borom nangul ko ko ci barke maam si Abdul Xaadir xam naa dañ koy jox kàddu gi rek bu defee mu ñëwul ci borom bis bi maamam ju baax ja imaam imaam si Abdul Xaadir ak borom kër gi sëñ Moodu bi nga xam ne mooy waajuram ak ñi nga xam noonu la ñuy màggalee ci kër gi ak ta kàddu yi nga xam ne dina ko jëmee ci mbokki taalibe yi nga xam ne xañ na bëggoon nañoo tey bis bi te koy dund ci Mafatihul Bichri international kon sëñ bismillah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñooy nuyu bi yëpp di nuyu waa Mafatihul Bichri gi nga xam ne kat ñoom mel na na ci mbir mi moom baatin da ci rax ndax xasida gi kat moom day sama xasida <laughs> mooy Mafatihul Bichri ba ci sama daayira yi ci ginnaaw sax am na ci boo xam ne moom laa ko tuddee mooy daayira yi bari nañ waaye moom Mafaatihul Bichri moo jiite mboolem daayira yi nekk kon kon boo ñëwee tey rek ñoo ngi leen di sant bu baax di ñaan ci barkeb Sëñ Tuubaa mu doon télé yi gën a kawe ci barkeb Sëñ Abdou Khadre te dana am incha allah waaw bis bi de moom ñoo ngi ci sant Serigne Touba di jaajëfal Cheikh Ibrahima Fall bu baax di ko delloo njukkal xam ne ñun moom na ko sëñ bi daa digalee rek muy sëriñ Modou Moussa Abdou Khadir mi nga xam ne mooy suñu waajur biñ koy njëkk a def jili jili yi ñoo ko sosoon ci Baxdaat biñ ko sosee yàlla dogal ñu daan ko def ci niñ waxee ne dañ ko defoon bis bi mu génnee jamono ci la yàlla dogal sëriñ Modou Moussa Abdou Khadir dem laaj ndigal ci sëriñ Saliou sëriñ Saliou jox ko ci ndigal ne ko kon nañ ko def bis bi nga xam ne moom la ku tedd ki waxoon waxam ju rëy ji ci maam Thierno ndax ñëpp mën cee jëriñu mm-hmm. ne ko boo demee diirub la ngay dem ba ba ngay ñëw mm-hmm. euh, koo dajal jéggal nañ la mm-hmm. ne ko bis boobu bu ñëwatee rek euh, danañ ko fonk te jàppale leen ca loolu ndigal loolu sëñ Modou jëli woon ci sëriñ Saliou ba mu joxoon ko ko ndigal loolu ba tey moom la ñuy wéyale muy jàng alxuraan jàng xasida def salaatu ala nabi berne eh, sax ci sunna comme ni ko borom bis bi laaje lépp loo xam ne nag lu dëppook diine la ñu nekk ci lépp loo xam ne lu dëppoowut diine ñu ñu fexe mu sori bis bi rek waaw loolu loolu moom ca lañ nekk waaw te fas ca sax ba faw bu loolu jàllee it cant gi moom ñoo ngi sant mbokki taalibe bi yëpp rek te xam ne seen taxawaay rafet na Euh, kaddu gi du ko du ko mate ndax ay ndongo rek lañ yoo xam ne amuñ lu du sëñ waaye nag buy teel bi sëñ ñëw di sàkku ci ñun kaddu danañ ci wax liñ ci man waaw ndax ku tedd ki kat lim ñu digal mooy jaamu yàlla euh, sax ci diine lépp loo xam ne tey ji euh, am murit bu ko defee ñu xool ci yow sëñ gis ko murit boobu da ko war a jëfe ñun nag li ñuy ñaan sëñ Tuubaa di ko ñaan ñëpp rek ak sama njaboot yi li ma leen digal mooy dama leen di faral di wax ne leen ab murit moom war naa am kersay di dox ñuy xool ci moom duñ xool ci moom di duñ gis ci moom lu dul sëñ Tuubaa loolu gàcce la moo tax ñun ñëpp lañ leen di digal rek mooy kenn kum ci mën a doon rek na nga sol lu yiw setal sa bopp defar sa bopp ba ku la gis naw loola xam ne kii taalibe Sëñ Tuubaa la eh, jamono léegi nag dafa soppeeku ba dafa yàqu ba lu ci baree bari jamono yàqu na ko ba ku ne lu la neex ngay def lu la neex ngay wax waaye nag sëriñ Touba mi fi nekkoon moo fi nekk ba tey te dóor fi jug ko ndax damay dégg ñu ne mag xew léegi ci jamono ñu ne léegi taalibe amatut mm-hmm. wala sëriñ amatut mm-hmm. loolu maa ngi ciy fàttali ñëpp rek te xam ne taalibe fam nekk mm-hmm. ña ngi ko am ba tey sëriñ fa mu nekk ña ngi fa am ngi fa nekk ba tey ndax ku ne taalibe amatut da ngaa fàtte Cheikh Ibra Fall fàtte Cheikh Issa Diène fàtte mag ñooñu te ñooñu seen i njabootam fi ami taalibe ba tey amuk taalibe ba lu lu sëriñ bi woote rek ñu nekk ci ku ne sëriñ amatut da ngaa fàtte sëñ Tuubaa te xam ne sëriñ bi lu ab sampam du daanu mukk ñun ngëm-ngëm boobu lañ yor ba tax na kuñ gis rek mu bokk ci sëriñ bi lu mën a doon ak lu mën a def rek dañ koy jàppee sëriñ Tuubaa ba tax na dara du rëy ci ñoom waaye ñun nag man Abdou sama nag li ma yàlla bindee mooy taalibe yi ñooy samay xarit njaboot gi laa am te ab Baay Faal rek laa fas yéene maa jëfe lenn lu du lu du ndigal waaw luñ ma def loolu laay def luñ ma luñ ma tere yi du ma du ma ca fas yéene jëfe incha allahu rabbi kon ñoo ngi ñaan suñ borom sàmm leen te taxawu leen te defal ñu màggalug jàmm Mafaatihul Bichri gii nag ñoo ngi ñaan ci barkeb sëñ Tuubaa mu doon ci bokk ci télé yi gën a kawe ci barkeb sëñ Abdou Khadir te am nañ ci yaakaar te noonu lay demee jërëjëf waaw jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke ñu ngi sant bu baax di la gërëm di la ñaanal suñu borom yàgg la fay fekk at yu bëree bëree bëri doon nga ko waxee doon xaritu taalibe yi ñu ngi ñaan suñu borom tabaaraka wa taala yàggal la ci kanam taalibe yi nga yàgg doon seen xarit yàgg doon seen kiiraay wax dëgg yàlla ni ko déglee noonu rek la ab sëriñ wax mooy digle lu baax tere ab safaan sëñ Abdul Xaadir bu masaa ñëw jébal ci moom wax ne la naka sax ci jaamu yàlla te nangoo liggéey te moytu ak tooñ jaamu yàlla mooy tax a dem àjjana liggéey mooy tax a am loo mën a jaamu yàlla mo moytu tooñ mooy tax a mucc kon nag waxam jooju rek moom laa déggaat ci sëtam bi kon alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi ñaanal baax suñu borom yàggal fa tamayel ak ñu ngi ñaan suñu borom mu nangu ko bu baax a baax a baax buñ fiy desewaat déwén yëgu yokkute bu